ci ànd dal leen ak jàmm fukki dogal ya tukkee ca conseil interministériel bi nu jagle la mbay mi bari na yéen kaay yu xëy fësal ko seenu xët l'observateur ca la bokk journal Futur Média bi ne campagne agricole bi démb la ci ilimaani jëwriñ yi di premier ministre Amadou Ba doon jiite ab conseil interministériel ba ñu tënkee fa fukki dogal mu bokk ca ne kilo gerte gi ren juróom fukk ak juróom-benn dërëm lañ koy jaayee nguur gerte fas yéene génne ñaar gerte gi juróom benn fukk yu manqué ñeenti dërëm lañ koy jaayee campagne bi di tàmbali fanweeri fan ci weeru novembre wi nu jëm nguur gi di xaar lu jege ñaari millions yi toni gerte vox populi ni gerte gi daal nguur gi tënk na kilo bi te itam buñ ko méngaleek daaw benn dërëm képp lañ ca yokk tribune ne ak génne téeméeri milliards ngir benn million yi toni gerte yeeg lu topp yi nuy xaar góorgóorlooti di baykat bi toog di xaar ñi doon xaar université Cheikh Anta Diop bu Dakar ubbiwaat dinañ xaar di ba jëmmi jamono bés bi le jour mi xëy samp fay làmpam di niit jaar jaari université Cheikh Anta bu Dakar Dakar ne mbooleem njiitu réew mu fi mas a jaar am nga fa woy woo fàtte président Léopold Sédar Senghor dund na fa weeru mai atum président Abdou Diouf ay année blanche am ak i année invalide moom itam loolee ko marqué président Macky mi fi nekk tey du fàtte weeru juin atum 2023 budget la ñuy wéy di woteel ministre yi ca pencum réew mi di assemblée nationale journal lay ne démb Moustapha Diop di ministre bi nu dénk wàllu industrie bokkoon na ca ministre am député rawatina ña fare ca ku jéggi sonal nañ koo ki laaje ki jàmbat journal L'As moom it muy tontu ak di défendre boppam Vox Populi ne la ko Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké wax moo ko gën a yëngal ndax dani ko yow Moustapha Diop waroo nekk ministre te amoo place ci gouvernement bi ndax nag fii lan la tudd ci léexooru covid 19 bi te ba tey tegoo ci taabal ji dara lu leer ministre bett tontu ko ne moom gannaawam bandang koppar googee aju ci covid bi amul a a dugg garab yi di fàq suuf si jalaañoo itam kenn du ko ca jàpp ak fifteen lii quotidien naataangoom bi yore wàllu dëkkuwaay di Abdoulaye Saydou Sow moom itam jaar na ca pencum ndawi réew mi ba xibaar ne yu màggat yu nu war a daaneel ci réew mi réew mi ñoo ngi waajal élection présidentielle yu atum 2024 journal bi ne APR ñoom di xeexoo ci seen biir susu aane xeex bi koy démb la woon lépp nag moo ngi tukkee ci Abdou Karim Fofana ma doon yóbbul parrainage seen candidat bile di Amadou Ba doxalin nga neexul Abdoulaye Diouf Sarr mi Karim Fofana nekkul délégué régional ci Dakar lii tax ba seeni militant doon sànnantey chaise nekkit leneen loo xam ne Amadou Ba war na koo lijjanti Walf Quotidien réeroo daal am na ci biir Benno Bokk Yaakaar Mahammed Boun Abdallah Dionne Aly Ngouille Ndiaye ak Mame Boye Diao ñi jël seen yoonu bopp ni gaa yi tàmbalee doxaleek ñoom rafetul neexul Bougane Gueye Dany itam ni ñu tàmbalee doxaleek moom neexul Direct News mi ko bind ne moom Bougane Gueye Dany gannaaw bi mu génnee ci tiis wi mu nekkoon dellusiwaat na ci langue politique yi waaye dafa mel ni gaa yi bëgg singili ndax nag gis nan ñu koy artu ne des médias jamono ji dañ koy xaxaral ak di ko propagandal moom Bougane Gueye ne noppi na ci fànn yépp xam na li koy xaar gaa yi ñi jaar nanoog moom fu nekk li ko ëlëm moo di ne lu tax ñu bàyyi ba waxtu wi ñu koy wax waxe propagande waaye moom moo ngi toog di xaar Aminata Touré moo xëy toog di wax ci journal enquête Mimi bàyyilul dara gaa ñi fi nekk wax na ci élection yi wax na ci parrainage bi wax na itam ci wàllu yoon bay samp laaj ne digganteem ak président Macky Sall kan moo ci war moroomam Aminata Touré ne li muy ñaax gaa ñi fari ci ku jege moo di ne keroog élection présidentielle yu atum bu deuxième tour ameen nan xool ki ci gën a jekk ñu jàppale ko way jur yi doon jàppale seeni doom ñuy jël gaali loocoy di jaar ci géej gi ci la l'observateur xëy di wax journal rue 15 angle corniche bi yaay yi yabal seeni doom ñuy jël mbëkk mi la xëy defum enquête ak di xibaar lan ko dugguloo yéenekaay bi ne ca école dem ba Sall ga ca Mbuur itam élèves ya fa dàqoon a jàng jël nan gaal yi ba dem tribune yéenekaay ne am na itam juróom benn fukk ak doomu aadama yu jëloon gaalug looco